juróom jëlee boobu la décision ñu bari merewoon nañ ko naka nga ko comprendre. <coughs> dama jaaxle li tax ma jaaxle dama dem ba am kers sax ni damay def politik ndax dafa am loo xam ni mën na am ci éducation nekk doomu enseignante. danga yow yàgg nga dégg ñu ne politique mbiru àdduna la. Mm-hmm. bon fàttali alaaxira loolu mooy mën nga wax lu dëgg mën nga war. man nga tas yaakaar loolu bon dafa man na dañ ko validé li dem ba jaaxal ma tey bi président waxee ni nanu rendal élection yi ña nga xam ni dañ leen ràññee ci position lu dégg naa foog naa de damaa dégg ñu wax ma jàkkaarloo ak ñoom ci écran mooy Mimi mooy Bougane mooy Abdourahmane Diouf ak temps d'autres ñu doon wax naan li fi nekk bu ci président sàkkul pexe fa nu jëm neexul ba Abdourahmane Diouf maa ngi dégg muy wax ni élection dina am ñu joxe résultat yi tànn koo xam ne tajul fenn bon war nañu jéem a seet nu nu waxtaanee. tey jii ci ñi ci la bokk moom Abdourahmane Diouf waaw loolu tax man defam loo xam ne dama ko miinul ndax euh, gis nga baat ak kàddu boo ko ñàkkee rek yaa bàyyi maa yem malheureusement nag politique bi fa dem ba am neneen noo xam ni. les gens danaan ko dañuy topp le sens du vent loolu dafa doy waar parce que lu ma gëmul du ko wax boo ko gëmee nag ba wax ko ak lu mu metti metti metti assumel ni yaa ko waxoon ba pare nga firnde ci li tax wax ko ñi nga xam ni dañu rejeté woon seen candidature mhm. mais président demandé wu rencontré leen ñoom ñu demandé audience président recevoir leen ba nu waxee moom ba daanee lu mu ci teg sama sañ-sañ mayuma may jàpp loxo conseil constitutionnel di ko wañaar waaye lu mën a indi réew mi ci jàmm dina ko def. fa la bu amee nag ñoo xam ne ndax chaque réew mi fa mu tuddoo ñu nekk assemblée am loo xam ne bëgg nañ ko mu indi débat boo xam ne toute journée daanaka jël na ko ci werante ba ñëw voté ko mais buñ ko voté président nag fekkee ne républicain laay wax. la nga xam ne représentant du peuple ko bëgg war na ci mën a ànd ak ñoom ngir intérêt mi. parce que damay wax ni président def na loo xam ne kenn daf ko defaat mooy 12 ans ku mën a nekk deux de cinq ans. nga mën a def bon amul moom tey lu mu war a démontrer mais nag responsabilité mi ngi engagé wu ci les lendemains du Sénégal daanaka bu nekkatul président.